يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال mbokki Sénégal rawatina yéen ñi dëkk diwaanu Mbour Ziguinchor ba Goudomp seen sukkaru koor yegsi na kan moo ko andi ci biir Sénégal kan moo dugal xewal googu ci biir réew mi ñu ne waa kër Tambadou Imo waaw waa kër Tambadou Imo ñoo leen di dalal jàmm di leen xaar fas yéene ànd ak yéen gunge leen ndaxte kat wàllu dëkkuwaay soxal na ku ne. yow mi doon wër terrain te bëgg lu wóor garanti te yomb waa kër Tambidou Immo dinañ la jàppale ba nga am sa terrain ci anam yu leer waaw waaw. kay nak ma wax la yow mi nga xamné ya dëkk Goudomp terrain yaa fofu 200 mètres carrés ba 400 mètres carrés mané ne mbokk yi wax la terrain 200 mètres carrés bi yaa ko mën am ci juróom fukki junne manam 250 000 kese ñaata ngay dugal manam ñaar fukki junne mu di 100 000 francs loolu neex na terrain 400 mètres carrés yaa ko mën am ci téeméeri junne yu manqué fukk manam 450 000 francs kese yaa ngi joxé acompte ba 200 000 francs manam ñen fukki junne looloo neex woote Legi Legi 77 633 41 03 yéen ñi dëkk diwaanu Chor xéwal gaa ngi noonu ay terrain yu ñu leen di proposé 150 mètres carrés 200 mètres carrés ba 300 mètres carrés waa lii neexul am na terrain yoo xam 150 mètres carrés la en cours de bornage nga mën ko am ci téeméeri junne ak juróom maanaam 525 000 francs dong acompte ba ñaata nga ci joxe ñu ne fanweeri junne maanaam 150 francs terrain 150 mètres carrés ci njëgu 1 million de francs cassé, 1 million rek la la wax de ñaata ngay joxé ci acompte ba li nga xamné modi moo di 250 000 maanaam juróom fukki junne terrain yo xamné c'est déjà borné terrain 200 mètres carrés à 700 000 francs manam téeméeri junne ak ñen fukk nek en cours de bornage acompte ba nak nek 200 000 francs manam ñen fukki junne te kat dessna li ci gëna neex terrain 300 mètres carrés déjà borné maa la wax lu mel non borné nañu ko ba nopi nga man ko am ci 2 millions de francs 2 millions de francs la la wax de mané mbokk yi ñaata ngeen di joxe ci bobu ñu 500000 francs manam téméru dina dong. mbokk yi ci am lu la 77 381 56 56 wala 77 359 85 54 wala nga def 77 750 34 78 te kat des na yéen ñi dëkk ci département de Mbour seen xéewal yegsi na ay terrain 150 mètres carrés ba 300 mètres carrés maa la wax lu mel noonu may ma nopp rek ma tegal la ma ne mbokk yi terrain 150 mètres carrés yaa ngi ko mën a am ci 350 000 francs maanaam juróom-ñaar fukki junne kese ñaata ngay joxe ci acompte ba ñu ne fanweeri junne maanaam 150 000 francs terrain 300 mètres carrés déglu ma de terrain 300 mètres carrés nek y la wax 750 000 francs ñaata ngay joxe ci acompte ba ñu 250 000 francs Madame juróom fukki junne dong mané mbokk yi un ci bëggé am lu la gëna a bo ci 77 564 14 93 wala nga woté 77 344 69 69 wala 78 114 78 18. té ku ne xamné mbokk yi koor.

أقبل تعال فالشوق